su ma ko tablee ci indi ba nga sangoo ko barke alxuraanul karim amatut luy dox luy ŋax di naanam ndox man ci yow dara amut kon nit ñi dama bëgg maanaam ñu xam ne xam-xamu mag ñi ma ngi fi. ko soxla gis euh, nga xam nga moom laa lay wax noonu. gis nga mbëri làmb yi maanaam tey dafa am loo xamante ni maanaam lay lañ naan lay daan lay daan mbër ma demut ca làmb ja yaa ngi dégg képp ku ma ci dégg ci ñoom yaa ngi dégg suñu borom def ne da ngaa da ngay da ngay bëree bëgg am ndam ndam nag suñu borom moo ko moo ko moom waaye nga ne kat ñun dañuy def jëfi jëfi nit yaa ngi dégg bëgg cee am lu leer naññ damaa bëgg nga ñëw nga faxe ba ma sampal la gënn gi gis nga gis nga su ma la sampalee gënn gi ah. gis nga sa adversaire tey même bu yoroon loo xamante ni moom daf la war a daf laa war a gaañ barke alxuraanu karim dafay dafay dafay contraire ci moom ba pare yaa ngi dégg mais dara loo xamante ni day jóge ci yow ci moom ñëw maanaam di la faagaagal du am jeex na bi ci des mooy euh, ki nga xamante ni dafay lijjanti maanaam euh, place yaa ngi dégg dem ba am place bi maanaam mënut a fexe ba am ci ringite maanaam kooku dama bëgg li may dig li may wax ni mu dégg ma ndax place nag côté bu nekk ndax nit ñaa ngi dañ dañ ba sonn te mënuñoo am mënuñoo am dara am ñoo xam ne tey seen loxo moo bënn tey mën nañoo liggéey ba am xaalis duñ ko mën a téye yaa ngi dégg am ñoo xam ne tey maanaam lépp lu ñu dugg bu ne toq juróom-ñaari nopp nañu bëgg mu demee noonu dut ñu demee loolu nag ay protection la yoo xam ne dama bëgg maanaam li nga xam ne moom laay wax maanaam nit ñi bàyyi ma xel ndax euh, li ma yor ci ay côté protection wala lazim du benn du ñaar te jamono ñu toll nii nit balaa ngaa jëm ci dara bëgg cee am réussite faxee la ba protéger sa bopp ndax protéger sa bopp dafa bokk ci li nga xamante ni moo lay jàllale fa nga war a jëm waaw kon daal li ma lay wax mooy ci sangatu gënn gi mm. képp ku am jafe-jafe ak jafe-jafe bu mën di doon woo ma ma fexe ba waxtaan ak yow ba sangat la ci gënn gi bu ma la sangatee mm. wala lazim day maanaam ay falafala yii du la fi jëlee waaw